quartier Tangori yenn bokk ci commune bu Tangori di jànkonteel ay jafe-jafe yu rëy bokk na ci yooyu la jafe-jafe am courant bu doy ci biir quartier yi li ni sax moo tax ba jaraafu dëkk ba ak ñu muy àndal boole ci ay partenaire ñu daal di taxaw tem ba fexe ba saafara li ni mel. Tangori dafa lëndëmoon dafa lëndëmoon tellement tey ñoom ñu taxaw le maire taxaw tem euh, andi courant ñëw résoudre problème commune bi. surtout bi nga xamante ne dans les tétés yi nga xamante ne euh, dafa lëndëm moom. Fapal noonu appareil yu bëri lakkoon nañ fa muy contacteur ak horloge bi yëpp demoon na yoonam poste bi ca si boppam sax mu mosoon na amoon problème après ñu par la suite après waa Senelec ñu déplacé ñu defar ko. donc loolu dana mën a permettre ñu mën a def liggéey yu ndaw ñu yàgg def te mën ñu ko woon def mooy jaay guddi jaay bëccëg dana mën a aussi régler waale en partie la question de l'insécurité mooy euh, loo xamante ne ñëpp yëg nañ ko ci biir quartier bi. dañuy rafetlu ci lumière bu ñuy àndil mooy maanaam leeral génn gi fi nekk lii amuñu woon ko mais fu mu toll nii am nañ ko woon pour nga chargé ji euh, sa portable sax da ngay daw fu sori dem uti ji fi nga koy chargé ji te lii ñëw na fi ba ñoo ngi ci sant suñu borom bu baax a baax di kontaan ci liggéey bi surtout gis nañ beneen euh, li nga xam ne li fa daan xew sax xewatul tey nit day xale bu ndaw dana ñeme def ba boutique ba ndaxte lan gis na li nga xam ne loolu mooy leeral gi. surtout côté bi nga xam ne ñëpp am li nga xam ne mooy maanaam euh, gëm bi nga xam ne dama naa dox ba fa ma jëm te kenn du ma laal ndaxte ñëpp am ngay gis. lii nag dafa bokk si suñu deuxième programme mu éclairage public ndax njëkkoon nañ def un cordon de quinze kilomètres lu dem ba dëkku bu ñu wax Badiouré ba Kulaay yëpp réhabilité nañ ko. lii nag mooy suñu deuxième programme lu jëm nag ci réhabilitation commune de euh, quartier populaire de Tàngori Transgambia donc ñu mun a expliquer askan wi ni liggéey bi ndànk-ndànk la te incha allahu rabi ku nekk ba sa buntu kër nañ la fa fekk réhabilité nañu donc piste bu dem ci stade bi comme ni ko adjoint maire waxee sànq réhabilité waat tamit euh, yoon bi dem ba lycée agricole ñoo ngi instant yi may wax ak yow tamit ñoo ngi laal donc Eteke euh, Diaw donc boutique orange ak lu dugg ci biir yëpp ñu ngi koy laal suñu paree foofu tamit danañ dem ci yoonu cimetière boobu tam nañ ko réhabilité ak it tamit TT5 donc piste boobu tam danañ ko laal suñu paree ci grands axes yooyu nag ci la ñuy doog dugg nag ci biir biir dëkk bi pour ñu mën a réhabiliter donc euh, foo fépp foo xamante ne am na poto lampe aussi wala quartier la boo xamante ne wala dëkkuwaay la boo xamante ne dafa lëndëm kooku tamit bi yéene na ñu yéene daal pour réhabiliter loolu yëpp ba a leer courant bi nga xamante ne ñu ngi koy delloo si ndànk-ndànk ci quartier Tàngori Transgambienne andi mbégte lool si askan wi ndaxte kaaraange dina yokk si boobule quartier ñoom nag ñu ngi ñaax jaraaf ba ak ñu muy liggéeyal ñu daal di baral seen loxo